boo ci jamono yële am mbégte lool ci ñëw fii ci turu sëñ Abdou sëñ Ahmadul Maxtaar ci màggal gi nga xam ne seen màggalu maam la mu màggalu Sëriñ wala bis bi màggal yàgg nañ koo def wala bis bi li tax mu gën am solo mooy defar dajeeg téeméeri at yi ci hijri muy bis boo xam ne sëñ moom daa bëgg nu murit yeeg jullit yëpp xam ne bis bii la sëñ Touba ñëwoon fii ci Touba. ak la ci Cheikh Moustapha daj ak la ko sëñ bi waxoon fexe ba mu ñëw fii ci Touba yàlla def nag yow la yàlla jox mu dajeeg sa toogaay muy centenaire bi ñëpp yéene la ko tam ndax xam nañ sa liggéeyal Serigne Touba ci xalifa yi ñu fi njëkk a jaar yëpp nag ba lii tegu sa loxo ñun fekkee nañ fi lu bare bare bare te kuy murit rek ci Pastef ak liggéeyal Serigne Touba rek mën na koo roy ci yow loolu moo taxoon sëñ Ahmadou Makhtar nee na sax waxtaan waxtaan na ca yow moom mu ne sëñ bi bi ma ko waxee def na ma moom moo ci jiitu ndax lii lu am solo la waaw loolu moo tax nag ñu ne ñu am mbégte lool ñëw fii dañoo ñëwaat rek pour di la ko waxaat rek confirmer rek wande yëfi moom sa yëf la yow lañ koy defal waaw bëgg nga ñaanalu ci bu baax a baax a baax jàppale saahir wa baatin ndax yëfi mën a mën a réussir ndax àdduna bépp lañ bëgg fu nañu defe ko fa nit tam ay conférence yu bari ay ay kii borom xam-xam yu bari dajale nañ leen ci euh, région yëpp lañ bëgg dem tam fu ne ñu def fa ay conférence ak nangam gën a la xamal sëñ bi gën koo tasaare loolu daal mooy li nga xam ne moo taxoon ñëw di ko wax ah, incha allah loolu mooy yitte ji waaw te lii day tax sax bu taalibe yëpp bu ñu la gisee danañ xam ne lii sa yëf la dañuy tax engagement buñ ci gënoon am ñu gën ko ca gën ko ca yokkata waaw jërëjëf Mbacke loolu rek moo doon bit waaw jërëjëf ñu seere si waaw ñu seere sant na ko bu baax waaw waaw daa bëgg wax yéen ñu ko itam baax baax baax xam na ni mu demee itam ni ngeen ci bëgg lépp ak li ci jublu xam nañ ko bu baax a baax parce que nañ ko ànd ak yéen ndax ñëpp a ko ñëpp a ko bokk te te te te loolu daanaka lu mun la ñàkk la mm-hmm. ndax man noonu may wax rek yoon wi yoon wi bëgg sëriñ bi ak topp ko mm-hmm. fii mu ak si moo ko fi andi mm-hmm. waaye taxul ñu xam ko taxul ñu dund ko xam léegi nag xam ko xam léegi dund ko loolu mooy mooy mooy la ca mooy la ca des loolu nag dëgg la amul yemaay waaye war nañ ci jéem suñu kéem kàttan ndax sëñ bi moom mënees nekkul a xam eh, waxu wala di ko dund. waaye nag alaa kulli xaal itam eh, moom moom moo moo moo war kon nag eh, mu toll nii moom alhamdulilah rabbil aalamiina xamle ko ak dund ko rek moo ci moo des suñu gëm kàttan nag. loolu nag kon bis boobu moom kon dara jiitu ko ci loolu. waaw loolu boo ko wax di ko wax. day wax ne euh, yoon bi fi mu àgg euh, bëgg sëriñ bi ak topp ko rek moo ko fi waaye nag euh, taxul ñu xam ko taxul ñu dund ko kon nag li ci des mooy jéem waxtu wu ne mu suñu te jëpp ñu def ko ci jéem koo xam jéem ko dund loolu rek la rek la <laughs> incha allahu am noo ngi daan gën a yeesal yaayante ci ci sabab si fedd suñu laa saay gën fa fas ko gën a ànd ak yéen incha allah jërëjëf. jégalu bu baax Mbacke ndax eh, sëñ bi bu xasee yëkkati kàddoom waratuñoo yëkkati kàddu waaye ni ko suñu am na suñu seex waxee léegi eh, ginnaaw ku tedd ki bi mu ñibbi see Tuubaa léegi ci atum hijjiriya eh, bi mooy téeméeralu at bi ñu jàpp nag ginnaaw téeméer at ginnaaw sëriñ bi ni nga ko waxee léegi am na taxawaay boo xam ni waras na ko cee taxaw ba ñu ko umpale gën gën koo xam bu baax ñi ko xam itam yokk seen xam-xam ci sëriñ bi ndax téeméeri at yi bari na loo xam ni xew na ci bari na loo xam ne am na fi ñoo xam ñi ko fi wutu ñëpp ba sa jëm ji liggéeyal nañ ko muy liggéey bu ràññi ko boo xam ne bu ñu ci sukkandikoo manees naa xam kan mooy sëriñ bi mbaa manees mën nañ dolli ak leer ci moom ci biir loolu nag euh, bay Ahmadou Barxa bi mu ñu woowee njaboot gépp nag la la woo amul fu mu ko yemale ñu def réunion ci bayti dem ci moom mu ni woo yónnee suñu Ousmane ci yow sàkku ndigal ba nga jox ko waaye nañ delluwaat ci yow euh, leeral la ni nga xam ni noonu la jàpp ne bu ko defee dina gën a yaatu dëppook téeméeri at yi mooy su insha allah ci sa ndigal euh, fukki fan ak ñett ci weeru juillet bi ñëw ñu dem Masaalikul naan mën faa def ndaje moo xam ne képp kuy kilifa dañ lay invité nga ñëw fa hmm. waaw waxtu boromi xam-xam yi nga xam ne ñooy seen njaboot nag te dëkk Touba ak ñëpp nga xam leen hmm. ñoo fay fas yéene waxtaane téeméeri lu at ginnaaw sëriñ bi ci wàllu xam-xam ci wàllu développement ci wàllu liggéey ci wàllu yar fànn gu nekk am na ku koy waxtaane hmm. fukki fa ak ñett lañ ko bëgg a ubbee ca Ndakaaru incha allah suñ fa jógee dem Louga xam nañu Louga euh, am na taxawaay bu mag ci yoon wi te soriwut ak ndar itam su ko defee ñu waxtaanee fa itam euh, maanaam téeméeru at lu ca mën luñ ca mën a waxtaanee waxtaane foofu ci Louga ñu fa jógee njaareem gi nga xam ne fa lépp xewe euh, ci ñaar fukki fan euh, ci weer wi ñu ñëw tëjee ko fa def fa conférence bu mag itam yëpp ku fa mën a ñëw ñëw fa ñu waxtaane waat fa la nga xam ni ndax gis nañu ni fonk gi nga fonk ak ni nga koy dundalee ba weer su teroo tam xarit gi ñëw nga dem njaareem Euh, daa ko fa def ànd ak soo ko ñëw fii loolu lépp moo tax euh, xam naa bi ñu waxtaanee ni nañ nañ ko defee foofee euh, tëjee ko fa suñ magalee ba ci suba nag ñu def li ñuy wax synthèse xool liggéey bi luñ ca amee ak luñ ci nu tuddee loolu lépp nag dañ ko def ay téere ci làng yëpp suñ borom xam-xam yi dajalee seen xam-xam ba noppi ñu def lépp ay téere nit mën koo jariñoo loolu daal mooy li nga xam ne moom la sëñ bi waxoon nañu ànd ak ñi nga xam ñëpp seen njaboot lañu ñëw tënkal la ko su ko defee itam dañuy sàkkuwaat ci sëñ bi rek Euh, ndigal yi gën a dëgër ci taalibe yi ba ni ñu ko war a dundalee fii ci euh, Sénégal itam mën ko dundalee ci réew yëpp loolu rek mooy tax ñu ngi jégalu bu baax nag xat-xat yi tey ñaan nga yàgg fi loolu te wér ci barke Cheikhul Khadim baax baax loolu rek la loolu rek bi rek mooy liggéey bi doo sëkk biir bi tey ëllëg te loolu loolu moo ci jiitu waaw xam xam xam le ko ak ko rek kon nag koy jot itam mboolem mboolem mboolem mbokki taalibe yi xam ne loolu loolu amul yéen yéen yitte loolu sax dàkk ci yittewoo eh, bi ak sax dàkk ci liggéeyal ko Eh, kon nag nag kon nag kon mboolem ku di ku ku ku ku taalibe mboolem mu taalibe yëpp murid yëpp leen di eh, boobu boobu sëñ Ahmadu Maxtaar eh, ñu yi njaboot gi fas yéene koo def ñëpp ko bokk ñëpp nañ ci nañ ko nañ ko àndandoo rek te te yokk suñu itte gën cee gën cee gën sàmm suñu positif gën gën ci euh, taxaw bu baax a baax a baax taxawaay rek mooy am solo euh, yombul waaye euh, mënut a ñàkk kon nag loolu lépp buñ ko boolee tax taxawaay la rek mu xam ne dañ ko war a bokk taxaw ko taxaw taxawal ko sëriñ bi sax sax dàkk rek ci ci ci ci liggéey ci jaamu yàlla ni mu ni mu ni ko bëggee ci noonu ak sax dàkk ci liggéeyal ko rek te yàlla tax jërë ngeen jëf